waa mais non xam nga xam nga loolu dafa fekk dafa am loo xamante ni Sénégal rek laa gis man ñu rejeté artiste visa rek ñu def ko coow mais dëkk yu mag yi am na artistes yoo xamante ni dañ leen di rejeté visa c'est-à-dire que bi nga koy rejeté dafay fekk ambassade bi am ci leneen lu ñu nekkoon loo xamante ni ça n'a rien à voir joxe visa parce que ay période la day am période yoo xamante ni si da ngay ñëw dugg am visa am période yoo xamante ni si peut-être que day te loolu comme li euh, li ma wax ak euh, Maxu xamante ni mooy li ma wax rek du lépp la ñuy wax et incha allah loolu noonu nga xamante ni amuloon visa dina ami visa ba ñeneen ñi topp tamit dinañu am visa bu soobee suñu ah, côté boobu sax maa ngi mais euh, Sidi euh, rejet visa rek moo ko muy passeport am moo des trois mois te États-Unis dix ans la doon joxe te moo ci desoon donc dafa waroon changer passeport bu bees pour ñu mën ko defal dix donc si entre temps ci diggante vendredi ak mu mënu ci am beneen passeport bu bees loolu tax ñu rejet demande boobu te am na passeport bu bees sous peu de temps dañ ko defalaat li nga xam ne parce que ñi mu àndaloon déposé ñëpp lañ jox 10 ans pour remercier di nuyu waale Souleymane le DG du label ñi nga xam ne ngi États-Unis léegi donc di ko remercier moom tamit liggéey bu rafet bu mu fi liggéey donc ñi mu àndaloon ñëpp am 10 ans ñëpp la ñu may kon donc Sidy c'est très normal ñu may ko donc buñ ko mayul du dara mooy maanaam passeport am moo defoon trois mois donc trois passeport bu def trois mois mënuñu si mënuñu si tamponné dix ans c'est impossible loolu rek la mhm. ah merci. Uh-huh.